balaa ñu ñëw ci lii xew peut-être euh, wala li war a xew ci kanam tuuti assemblée motif bi d'abord li waral ñu daal di leen di convoquer en session extraordinaire moom mooy suppression ñaari institution du HCCT ak CSE euh, euh, li ñu joxe comme motif moom mooy rationaliser les dépenses publiques bu ñu leen supprimer dinañ daal di économiser lu toll ci 15 milliards en tout cas de francs CFA yoo xam ne xëy na am na feneen fu ñu ko war a mën a dugal d'abord lan nga xalaat ci suppression wu ñaari institution yooyu. waaw d'abord loolu ñu wax ne wax nañ ko man li ma tënk mooy loi bi. te projet de loi bi gisuma ko am na loo xam ne benn journaliste moo ko bind am na loo xam ne ni peut-être conseil information moo euh, président wala cellule de communication mais loi bi li mu wax moom d'abord projet de loi bi projet lan la mm-hmm. est-ce que projet de loi bi mu ngi tudd projet de loi suppression suppression euh, euh, conseil que mm-hmm. wala dafa tudd comme ni mu war a tudd normalement mm-hmm. projet portant révision de la constitution mm, foofu tamit am na lënt-lënt. waxuma amoon lënt ma wax li li am. parce que loolu moo gën a leer. Mhm. loolu moom doo juum ne commission parce que ragal na xaw ma nu mu bind lu mu bind mais boo demee du ñu attaqué au conseil des collectivités rurales si article bi ko concerné dañ koy attaqué ci révision bi nga xam ne moom la ñu mën a def constitution bi pour soppali ko. ndax président war da ko mën a def euh, am na ñu ko ne ko def mais maa ngi fàttaliku euh, que. Euh, 12 septembre 2012 benn laa ci jël président de la république bi muy dem convoqué na convoqué na élection pour le sénatoriales mu nekk defe naa vacances Afrique du Sud mu taw taw bu metti mu ñëw ci aéroport bi mhm. lañ ko wër am na les gens de la société civile particulièrement ñoom di dinañ ma xam ki may wax ne ko inondation bi nu mel nii boo bëggee nit ñi ànd ak yow suprimel le Sénat fa la ko waxee après voté par une loi par un décret 2012 908 du 7 septembre 2012 mu ne dañuy convoqué session extraordinaire u assemblée bi pour ñu waxtaanee révision constitution boo xam ne bi dafay supprimer le Sénat moonte bon président de la République moo convoqué session extraordinaire la dañu nekkoon vacances mais député yi député yi yi fa nekkoon ñoom ñëw nañu ci session extraordinaire bi ba nga xam ne réviser nañu constitution bi dindi Sénat bi Mimi Touré était ministre de la justice Abdou Mbow était vice-président à l'Assemblée nationale wante woon dinañuy nangu ne mhm. dinañuy nangu ne président la mu defoon 2012 bii sañ na ko ok maintenant li ñuy waxtaanee euh, wax nañu ne au conseil de collectivité ak la ndax man lu ma ci suma xalaat man dama jàpp ne bu yàgg ne au conseil des collectivités territoriales li ñu ko sant ci liggéey mu ngi ci liggéeyu conseil économique et social et environnemental. Mm-hmm. waaw lépp du dara lu dul laaj. ci laaj. président daf leen di laaj parce que ñoom institution la boo xam ne bii institution consultative lañu. dañ leen di laaj. Mm-hmm. te développement social ak développement territorial complémentaire au développement social développement économique et social réew mi mu ngi basé wu ci collectivité territoriale yi ñu am doole gën a jóg ñu commencer le développement par la base. mais loolu mu ngi mu ngi conseil économique social moo ko daan def. donc mu ngi fi par contre ba pare conseil économique et social am na lu mu mën te collectivité territoriale mënuñu ko. tey bu ñu dindee caractère territorial du yàq dara ci liggéeyu conseil économique et social mais boo dindee conseil économique et social dina am pàcc boo xam ne bii mhm. au conseil teritorial amu ko xanaa nga yokkal ko ko mais bi mbub mi fi mu toll woon lay toll bii boo ko dindee il faut nga yokk mbub mi il faut nga ñambaas ko mhm. Euh, moo lay wane loolu ma dem ndax d'accord naa ci man mësuma d'accord ci haut conseil de collectivités teritorial mais mësuma ngàññ ne dañu war a dindi conseil économique et social mhm. ni suñu régime jàppe woon ne premier ministre kenn du ko dindi ci constitution bi noonu la ñuy jàppe woon ne conseil économique et social dafa war a toog moo tax saa yi amee soxla am jafe-jafe ci conseil ci premier ministre ñu changé ko mais bàyyi fi post bi ci constitution bi moo tax dégg nga ma chaque fois bi mu ko bi ko Macky Sall defee ma ne ko ni sengoor ak Abdou Diouf defoon li nga forcé sa bopp war wocc ko di nga ko lekkat mm-hmm. teguñu ci yàgg ñu indiwaat premier ministre ko effectivement donc conseil économique et social tamit la mel ci ñun. depuis indépendance dañ ko miin. dafa bokk ci suñu ADN dafa bokk suñu façon ba pare ma jàpp ne réewu adduna bi yëpp pratiquement quatre-vingt-quinze pour cent yi am nañ ko. donc man mënuma boog nangu ne dañu war a wéet ci ñi nga xam ne amuñu ko. Mhm. moo tax am na benn association mondiale bu tudd association des conseils économiques et social et environnemental et institution similaire. ok ak ñu niroog moom. d'accord moo tax bon euh, d'accord ma naa ci ñu supprimer. au conseil, au conseil mais jàpp nga ni CSE moom munoon na fiy des peut-être euh, xooloon fusion au lieu de supprimer les deux institutions peut-être li manqué ci CSE ñu jël ko ci HCCT daal di ko ciy boole. c'était la meilleure stratégie. loolu encore yombul li nga koy waxee nii. ça dépend ci la nga xam ne moom la ñuy def ca bi ñuy wax ne institution de la république ñii la. donc foofu da nga génn rek. au conseil des collectivités territoriales génn fa au conseil des. conseil économique et social ba pare seet ci constitution bi fépp fu mu nekkoon. nga dem dindi ko. d'accord. mais pour fusionner leen aussi dafay nekk beneen loi boo xam danga koy tëggaat dootul conseil économique social ni mu nekk da ngay comme ni ñu ko defoon dañuy génne conseil économique et social. Mhm. indi le conseil de la république. mais institution bi benn endroit bi la benn lieu bi la. mission yi la ñuy dajale yokk ci yenn mission def ci beneen organisation. Mhm. Mal. waaw waaw man euh, li may laaj mooy est-ce que tey ñoom raison yu ñu avancé par rapport ak suppression ñaari institution yooyu jàpp nga ne. raison yu dëgër la maanaam rationalisation des dépenses publiques mm. moo waral yàgg nañ ko wax ah c'est des institutions yoo xam ne euh, xëy na jàpp nañ ne lu muy kutal voilà lu réew mi dafa bëri te xëy na bu ñu ko supprimer dina am feneen foo xam ne koppar yooyu nga xam ne wax nga ko sànq kajaar toll euh, presque ci quinze milliards dinañ ko dugal feneen est-ce que Doudou Wade jàpp nga ñoom euh, Pastef raison yu ñu avancé ci sa expérience raison yu yu dëgër la yu ñu mën a sukkandiku la ndax raison yi Pastef avancé. parce que parce que c'était une promesse électorale ñoom ñoo ko prometre woon. oui xam nga léegi dépassé nañ place am électorale. waaw moonte promesse électorale bu fekkee ne amoon nañ ko. waxoon nañ ko dañuy jàpp ne président de la mu ngi ci loolu lu dëgg. Mhm. fii mu nekk nii lii ñuy jëf nii du Pastef président de la république la. Mhm. président de la république moo décrété yónnee texte ne. damay supprimer nangam c'est parle le Pastef parce que ku nekk léegi dañ koy wax loolu li mu def ak li mu sañ ak li mu mën donc président de la République la wax ne moom day da ne ndax président de la am na sañ-sañu convoqué mënuloo ko wax léegi rek bëgg ne ndax li Pastef convoqué donc loolu il faut il faut ñu ñu loolu parce que bu ñu bokk lu ñuy wax. dañuy juumloo. téléspectateurs yi. waaw mais bien mais ñoom bu fekkee promesse électorale Pastef mu nekk ci nguur gi quand lu ñu mënti wax. même si le président le président ci Pastef la bokk le premier ministre ci Pastef la bokk Pastef c'est parti politique bu bokk ci kii bi ñoom dañ ko bindoon en 2019 Ousmane Sonko ci boppam moo ko njëkkoon béng ci ci programme am mais en 2024 Bassirou Diomaye ci euh, campagne électorale mu daal di ko dëggalaat tey jii ñu accéder au pouvoir Bassirou Diomaye Faye président de la république ñu daal di wax dañuy supprimer ñaari institution yooyu kon dañuy jàpp ne li ñu waxoon askan wi euh, bu ñu nekkee dans l'opposition dans le parti passif bi ñu egsee tey ci nguur gi euh, daal di ñu ko jëf comme euh, ni ñu ko waxee woon bu ñu nekkee ci opposition. da ngay guddal wax bi pour rien. Hmm. xam nga fooy mujje waaw président de la République moo décidé tey ne. Hmm. dafay supprimer ji mais doo si gis Pastef doo si gis kenn. premier ministre mooy continuer signé rek si suuf parce que gouvernement bi moo ko war a appliqué. d'accord raison yu ñu yu ñu avancé est-ce que jàpp nga raison yu valable la. waaw raison yi ne moom laa dégg nii. Hmm. mais gisaguma ex exposé des motifs bi nga xam ne moo wax loolu. parce que am na exposé des motifs. Hmm. donc koy fekk man gisaguma ko. bu ma ko liiree ci laa koy xam. Hmm. exposé des motifs mooy wax lan moo tax tey ñu jël décision bi en 2012. bi ñu koy jël Macky Sall dafa wax ne dafay supprimer Sénat bi. Mhm. parce que euh, dañu toll ci benn situation boo xam ne am na ay jafe-jafe il faut ñu fasser des économies à grande échelle pour def nangam loolu la wax. donc loolu maa ngi xaar ba xam lu ñu bind. mais institution budgétivore. Mhm. defe naa ne du ñu bind loolu. bu fekkee ne dañu bëgg rek économiser. pour supprimer ay institution budgétivore kenn du ko commencé foofu. du mm-hmm. dëgg. Mm-hmm. dañ koy commencé ci ñi nga xam ne ñoo ëpp budget. moo loolu taxawul ñu wàññi budget wax ma wàññi. Mm. nekku ñu ci wàññi suprimer dañuy wax. Mm. bu fekkee ne président de la mooy ëpp moo dafay dafay engrager cent quinze milliards. Mm. te kii di organiser quinze boo supprimer kii war a rey kii suul ko. mais loolu président wax na ko démb conseil des ministres. waaw loolu bokk na ci lu tax ñu bëgg a supprimer ñaari institution yooyu ah. encore une fois. Euh, xam nga loi moo ñu indi. Hmm. du ma wax li président wax conseil des ministres. nee naa rek tey laa mës a dégg président wax loolu ci conseil des ministres. te normalement loi bi ñu yóbbu assemblée dama jàpp ne waroon nañu wax ci fan yële passé wala ci weer yële passé que conseil des ministres daje na examiné na. projet de loi sàngam adopté na ko. Mhm. dina dem assemblée mosuloo dégg loolu. loolu ngay dégg ci conseil des ministres yu nekk. d'ailleurs sax ñoom sax ñu ngi lay wax naan defar nañu ay quatre-vingt et quelques lois yoo xam ñu ngi ko téye mais lois yooyu fan ko defaree. defaraguñ ko parce que enterré ko au conseil des parce que am na ay yoo xam ne obligatoirement dañ leen di adopté en conseil des ministres. da nga jàpp c'est l'inexpérience wala dañoo nekk di. jàpp jàppuma dara. Mm. jàppuma dara dama ne. Mm. lii war a am lii la. yow yow sa bopp xam nga ne conseil des ministre boo dégg projet de loi yi ngay dégg yëpp ñu koy yóbbu ko assemblée. da ngay yëg ne conseil de ministre adopté na ko. Mhm. waaw man loolu laa wax li ngay yëgandoo man waaw mais li nekk ci biir loi bi. Mhm. mënuma ci sori. xamaguma lan mooy motivation réelle yi parce que motivation réelle yi président da koy bind def ko ci exposé de motifs yi te droit bi dafa wax ne exposé de motifs yi ci loi bi la bokk parce que moo koy éclairer. mais waxuñu ne déclaration politique déclaration président moo koy éclairé. Mhm. tey euh, mouvance présidentielle bi ñu ngi bëgg dem euh, assemblée nationale pour justement suppression wu ñaari institution yooyu mais amuñu euh, majorité à à l'assemblée est-ce que tey quelque part loolu du du poser problème pour adoption wala voter bi lép loi. waaw mën na poser problème. Mhm. bu fekkee ne dañu bëgg loi bi jàll am na mën na poser problème parce que ñoom amuñu le nombre bi nga xam ne moom la ñu am. pour mu nekk. mais am nañu peut-être nombre boo xam ne bii mën na leen jariñ bu fekkee ne assemble bi matuñu. ok parce que assemblée bi mën na am mën na am ci bu ñuy voté loi bi cinquante personnes nekk fa ok député yëpp bañ a teew. waaw ah, mën na nekk trent maanaam bu trente député teewoo à l'assemblée aujourd'hui loolu mën na nekk seen chance. bu waaw ah, mën na nekk seen amuñu majorité. attends hmm. mën na nekk seen chance bu fekkee ne ñoom seen 29 député ñëw na. ñëw nañ hmm. ok. parce que loi bi. 3 hmm. cinquième suffrage exprimé la. waaw du 3 cinquième de l' assemblée. du 90 3 cinquième suffrage exprimé la. suffrage exprimé mooy mooy ñi nga xam ne wote nañu. mais assemblée bu leen neexee ñu croiser les bras ne wote wu ñëw toog après dem. wante moom kenn xamul. ban effective nga am pour loi bi jàll ngoonte li gën a woo nga dajale sa nit ñëpp mais boo dajalee sa nit ñëpp aussi nga dajale ñi nga xam ne mën nañu ànd ak yow donc la majorité ne pas acquise maa ngi encore ci professeur Amadou Ka nous sommes dans une situation de de majorité euh, discordante mm-hmm. mooy mën nga ko am tey suba mënoo ko am ci ngoon gisoo PDS am ay loi yu mu jàllale te amul majorité mu hmm. jàllale commission d'enquête te amul majorité modifier constitution te amul majorité renvoyer élection te amul majorité lan moo ko may mais dañu waxtaan hmm. dañu waxtaan ba pare pouvoir bi d'accord ci waxtaan bi parce que Macky sàll moo wax ne jàppale leen waa PDS ci li ñuy def moonte bon waxtaan da nga ne waxtaan war mun na am non warul du question maanaam dañ ko war uti man li ma amul teew nga am ko te nga yéene ma jàmm bu moo ko laajee dama ko abal. Hmm. loolu rek la loolu.